mbokk yi dal leen ak jàmm te ngeen abonné te like te partagé ci chaîne bi di Tivaouane 24 TV seenu diine ji seenu lislaam bi seen bi leen di jëriñ Tivaouane 24 TV seen bi dox saa su ngir dab seen bànneex xew mi am loo bëgg siiwal moo xam programme la wala lu mu mënti doon jokkoo wala ak Tivaouane 24 ci numéro yi ci barki Kaaba gi Tivaouane 24 na ko yàlla def télévision bu mag ci barki ah, yonent Tivaouane 24 na nekk télé incha allah. Seydi El Hadji Malick Sy dëkk la mbooloo mi ne buur gi Alla Ndiaye xadara bi bu munul ñàkk xadara bi di seedeel mbooloo mi ne góor gi Alla nit ku am njariñ la di seedeel mbooloo mi ne góor gi Aly Ndiaye tarixa bi ak diine ji ku ci rey boppam la ba mel ni saxaaba bii nga xam ne moom lañ tuddee woon le ministre de l'économie et des di Ousmane Alaaji bu saako dafa ne nabi daf doon def attaque manqué xaalis Ousmane décalé ko waaye góor gi Alla Ndiaye tarixa bi diine ji bu daan def attaque ñi ko daan dekkale ci la bokk jumaa ji ngeen jàkkaarloo yebu jumaa wu Seydi El si Malick nga xam ne fa lañ ko tëral barki dee mu ñu taxaw ci sàppe yi gis nañ digganteem ak moom ñuy wax nag njabootam gii taxaw na di taawam bii Massata Ndiaye nekk suñu mag nekk suñu xarit di wax ak Aziz Ala mii su ma leen tuddee ñoom ñaar yóbbu naa njaboot gi ak seeni xarit ne ñoo ngi doog a doon nag bis ni ki tey jii ay boromi kër ndax nee nañ tànk sa baay a ngi dund loo yor teraanga teraanga loo yor alal alal sam kilifteef day des waaye kaay sa baay dee na dara ko koo dee kon nag Masata kon nag Aziz waaye ñoom kenn du leen soññ ndax ñoom la saa baay waxoon ne ñett fi ne kii tiitaroo baayam ak ki baayam di tiitaroo ak kii tiitar baayam waaye ñoom ñaar nag ñaar yi lañu jël si Malick mosu ñoo tiital góor gi Alla Ndiaye lu góor gi Alla Ndiaye war a def njabootam gi ñoom Aziz def nañ ko fukk kuy sa baay góor gi Alla Ndiaye tiitër la fii nga xam ne fii la ñu dëkk ci wa ak ci biir réew mi yëpp ñoom daan nañ ko tiitëru ñu ñii ñëpp Aziz suñu xarit la Masata suñu xarit la Baye suñu xarit la góor gi Alla Ndiaye suñu baay dañ ko doon tiitëru waaye góor gi Alla Ndiaye da doon tiitëroo njabootam gii ñu ne jumaa wu Seydi El Hadji Malick Sy Guèye njabootu Alla ji day joxe gu mujj gi joxe nañu cent millions kooku fa mu tëdd keroog kontaan na bi mu seetaanee image waaye ñoom nag mosu ñoo tiital seen baay seen baay nag di góor gi Alla Ndiaye nekk nit ku social nit ku boole woon géejawaay gépp man day Ahmed Aidara damay jël maire teg ne jël député teg ne lu ne góor kii jóge fi tey defaral nañu lu ne jàppale nañu damay expliquer rek ay anecdote ku ñëw nag mu jàppale bi ñu nekkee ci suñu mbiru àdduna yi si Malick damay dégg ne léeg-léeg Alioune Sall de romb na buntu kër Alla Ndiaye bu demee rek ma jege su ma ñëwee ne ko bàyyi ale maa nii gën a jege gën a yegg di ko aca Baye Allé caravane baa ngi nii jox ñu dara boog essence Baye Allé génnee deux cent trois ma ne gars yi filmer leen ko photo leen comme ça ma kookali yi kii mooy sama baay gars yi filmer góor gi Allé Ndiaye génneel nañu ay oto góor gi Allé Ndiaye jàppale nañu taxawu nañu ci biir géejawaay gi le njabootam gii raw ko Aziz yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay dama koy wax ci rajo bi di ko wax ci rajo bi te làqatuma ci ndax ay nit ñoo xam ne dañoo bokk nag ak di defarante lu baax ngay jéem a nëbbatu di jaay star amul benn sens Aziz kenn gënu leen a social handicapé yi ñi feebar Aziz saay bu ma la wooyee ne la génneel ñetti nag nga jox ma ma jox gaay Aziz ne ma am te boobu maire amul dara amul ba suñu armeel yii dama ko téléphoné ne ko li koy ubbi mooy dama bëgg nga defar fa ay toilette ak ay morgue mu ne ma jëlal téléphone ma booleel ak sama maçon loolu ça n'a rien à ak ay affaire u ne moo koy def gratuitement kon nag Elimane li nga wax léegi nii ci Aziz ñun ñoo ko mën a seede ndax buñ ne ndax nit baax na dañ naan ndax mbokk yaa si Malick ñu leen di seedeel ne seen taalibe bii jóge fi yaakaar gu rëy moom la ñu am ci moom yaakaar gu rëy la amit ci njabootam gi mu fi bàyyi alxuraan nag li wax leer na boo fi jógee ana ñett yi nga xam ni moom lañu mën a assuré ne mën nga cee sukkandiku ñu ne xanaa xam-xam bu mu fi bàyyi te jàngal na njabootam gi jàngal leen lan leen ci siraatal mustaqim ñii naasiri xaq bi xaq rek lañu xam kon xam-xam baax ñu ne waaw ak lan ñu ne lu ñuy jëfandikoo lu mel ni garab goo xam ne dañ ciy toog ci suuf mu am ker wala mu am ay ñam ñuy jëfandikoo góor gi Alla def na ko ñu ne waaw ak lan ñu ne ak njaboot goo xam ne dafay toog di ko ñaanal kon ñetti condition yëpp daje na ci moom wéet du ko mës a def loolu jàllale na ko jàngalal na leen mooy xam-xam bi ma wax kon ñett yaa ngi noonu bu ko defee nag ñu sant ñëpp gërëm ñëpp màngam yi toog léegi nii mi ngi may wax ne ma soo jugee di wax comme que yow lañ jiital ci dëkk bi moom du wax ancienne gloire yi ñoom tamit ñëw nañ di jaale kii nga xam ne mooy Aziz Aly Ndiaye Elimane yàlla na la yàlla fay yàlla taxawu la ci ni ngeen àndee ak Aziz lépp lu ñu war a defal Aziz Ndiaye wala topp ko ak ñoom ma yéen ak ñoom Baara Gueye def ngeen ko si Malick werante bi am léegi nii nag lañ leen di wax ak di leen ci baalu Mohamed Daw Taay seen mii dañ na ko toogal fii Serigne Mansour si Jamil toog mu ne ku toog ñu ne sëñ Habib mu Serigne Mansour mu ne yàlla tere toog ci kaw samay sëriñ toog ci suuf te ñu bokk ci xadara bi du ma ko def ne ma demal yow sëriñ nga yow seen sëriñ nga demal ma ne ko ma ne duma fa toog ma ne maa nga yow demal yow xëy na mbir mi bañ laa bañ a def di ko tooñ mu ne ma ne du ma dem de mooy werante bi nga fi dégg léegi waaye ndekete boobu Serigne si Sy Djamil ci yoon bi moo moom place bii kon ndaw yàlla na la yàlla taxaw ñu gërëm waa géej waaye gërëm suñu jëwriñ suñu xarit di montaal doomu bàyyi kaala moo toog ne le kàddu yi nag mënuñu ko cooñ bañ a sànni ndax góor gi àll ak yaay fa mu jëlee ak fa mu yóbbu social bi ancienne gloire yi ñu koy gërëm taxaw na leen te ancienne gloire bi tamit nee na ñu ngi koy gërëm di ko sant ci social bi ci social bi allahuma salli ala sayyidina muhammad was jërëjëf monsieur le maire Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour Diaby la ñuy déglu Abdou Fall nag ci turu daayira yëpp tabaarakallaahu ngërëm lii